moo xam mënuñu jënd soo leen gisee ni saabu moo xam ne dëmb ñëwuloon c'est vrai que lay promis que tey 10 heures waroon nuppi nag moom la ñuy dugal nii donc mais matériel bi li nga xam ne moom la ñu am inspecteur euh, euh, bëriwul bëriwul euh, nit yi bëri na mais dañu yaakaar ni ak loolu école yi war nañ mën a commencer seen activité donc dañu jënd lavoir fu ñuy raxasoo mooy robinet yi 20 yu ndaw mooy yene ak ñaar yu mag ñaar yoy lañ njëkkoon jënd c'était pour les deux écoles d'Alifort parce que dañu doon ñaar robinet de côté donc 20 yu ndaw ak ñaar yu mag ñaar yu mag dama koy préciser rek parce que fa la fa la élèves yi ëppee c'est pas une discrimination nak élèves yi am école privée xamné 6 élèves la aussi il faut qu'on se dise la vérité amna xamné amna xam 90 donc 20 hein, euh, euh, cartons de gel hydroalcoolique carton a 20 cartons au moins de cartons de gel hydroalcoolique hein? 12 donc 12 fois 20 hein, euh, bouteilles bouteille de gel hydroalcoolique 500 500 500 millilitres de 500 millilitres 20 cartons d'eau de javel, 50 paquets de 18 morceaux de savon, 30 bombes insecticides, on l'avait demandé, 16 thermoflash. Ces thermoflashes aussi, il faut préciser que l'école CFA et l'école d'Alifort, on a prévu deux pour ces deux écoles-là, Boussinec. 500 masques pour les enseignants, le corps, hein, l'encadrement, et 1700 masques élèves. Non. hein? total, là, total masque, 2700. C'est 1800, 2700 de total. C'est 2200. Hein. Donc 1700 pour les élèves, 500 pour l'encadrement. Et masqueux aussi, il faut dire que c'est des masques professionnels en fait. Là, là, parce qu'on a pris des masques enfants. Vraiment, taille, moi, ça ne déborde pas. Vous allez voir, c'est très joli d'ailleurs comme, comme masque. Donc, l'on l'a à inspecteur, pour pour que nous puissions au moins démarrer sur euh, c'est une, activité école. Donc, euh, voilà, au nom de, du bureau municipal et de toute l'équipe municipale qui a travaillé dur pour ça aussi. Nous voulons Nous vraiment fit pour mais nous ñaan d'abord rek Nous d'abord encadrement parce que euh, surveiller parce à part la maison parce que les gestes barrières ñu ay la première semaine parce que nous day fo départ si une distance c'est très difficile et je sais que c'est voilà le travail difficile qui vous attend. Et sans compter encore Khaleisen euh, yi seen il y a leen euh, ah, et puis euh, jëlee Fébarbi, nous bi donc vraiment en tout cas on est de tout cœur avec vous avec le corps enseignant c'est que voilà mais c'est le devoir qui appelle comme le corps enseignant de santé hein, les personnels de santé l'ont fait aujourd'hui on vous appelle aussi à aller en contact de l'inconnu au contact de l'incertitude donc l'eau aussi dañuy ñaan yalla rek mom rek mo ñu ci mëna mu merci beaucoup monsieur l'inspecteur Monsieur le maire de Dalifort, euh, je suis heureux de répondre à votre invitation aujourd'hui pour cette cérémonie symbolique de remise du matériel pour la prévention que les enseignants doivent faire dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 dans les établissements d'enseignement élémentaire que vous avez en charge. Je voudrais vraiment tout de suite vous dire toute ma satisfaction par rapport au lot de matériel que vous venez de lire ici. Et je voudrais honnêtement vous dire que je ne croyais pas que vous en aurez autant. Parce que comme vous nous l'aviez dit au conseil départemental de développement, au CDD, on sait qu'actuellement, tous les secteurs sont touchés. Tout le monde a été impacté et même négativement impacté. Encore autant, sinon plus, les collectivités territoriales que les autres qui ne parviennent plus à vraiment percevoir des quoi que ce soit. Parce que la conjoncture a fait que beaucoup de choses ont changé. Mais malgré ces difficultés, vous avez pu, à mon sens, des fois même dépasser les ratios que le protocole de la santé nous demandait de satisfaire avant de débuter tout enseignement apprentissage de 2 juin. Ça, je peux le dire en, regard de ce que vous venez tout de suite de lister ici. Je crois que vous avez satisfait pleinement les prérequis qui nous permettent de débuter le 2 juin. Et en cela, soyez vraiment remerciés au nom de M. l'inspecteur d'académie, au nom de l'éducative de Pékin, particulièrement celle de Dalifor et plus particulièrement encore du corps enseignant. Vous nous avez confié vos enfants, comme vous le dites. Ce sera un tout petit peu difficile parce que nous, d'habitude, on s'occupait de pédagogie et aujourd'hui, on doit avoir des préoccupations sanitaires. Nous n'allons Nous avons installé chacun ou chacune dans son école une cellule de veille dans laquelle il y a vous, il y a les partenaires, la communauté éducative, et peut-être que parmi cette communauté éducative, il y a des profils plus indiqués que nous pour aborder ces questions de prévention sanitaire au niveau de l'école. Et ça, je crois que nous allons prendre les précautions qu'il faut pour, en tous les cas, et je l'ai dit au directeur lors de la réunion de samedi, respecter le protocole, c'est d'abord avoir de l'eau à l'école. Respecter le protocole, c'est aussi avoir des toilettes fonctionnelles. Respecter le protocole, c'est également avoir une salle d'isolement au cas où il y aurait un cas suspect, se référer directement à monsieur ou madame l'infirmière chef de poste qui est à côté d'eux. Et d'autres choses. Maintenant, les prérequis matériels. Le kit est complet. Il y a tout ce que nous devions, ce que nous demandions ou bien ce qu'on nous demandait pour commencer les enseignements. Il y a tout. Donc, monsieur le maire, ni amatuma la parce que li nga def nii yëfi jàmbaar dëgg la te du guleet nga béyee nii sawar waar chaque fois bu école di ubbi maa ngi dégg li nga fiy def li nga fiy def nag ñun xeepuñu ko lu bëri la da nga ne bëriwul mais ñun si ñun lu bari la parce que mot na si li ma dégg si li nga liir nii dara manqué wul fi loo xam ne dina tere njàng mi commencé bésu le 2 juin suba incha allahu seen xale yi ngeen ñu dénk ngeen dénk sama collègue enseignant yi li si war yëpp dinañ ko def parce que ni nga ko waxee léegi li ñuy njëkkee mooy fan yu njëkk yi du ñu xëy rek commencé jàngale bi dañ leen di jàngal vraiment ni ñu mel ni wara war a doxalee si biir euh, kuy ak Covid 19. nan la xale wara a parce que am na nu xale yi meloon peut-être ko mel gis nga déjà ñun ñii sax ku nekk a ngi toog à un mètre de sa morom loolu yëpp premier jour yi jox nañ leen ay fiche ak ay recommandations ak ay instructions yu ñuy kii. li ngeen def fii nag yéen waa Dalifort seen ngeen ko defal parce que éducation. dafa 10, dafa mettre... mais vraiment je voie bo xamni bi si la gens wara jaar pour développer wu ngeen seen xalé yi dinañ leen jappalé di ngeen ñu dinañ leen jappalé inshallah à partir d'aujourd'hui dans le cadre de ces luttes si on était déjà ouvert on doit davantage l'être surtout si on l'était dans le CG, e, on doit l'être davantage dans la cellule de veille parce que li du suñu du ñu rek ñoo ko mën régler gis ngeen tay bu nekkutoon monsieur le maire suba ben école du ubbi fi ci dalifor ñepp si wara def sen loxo monsieur le maire def na ci quartier bi amna na ñeneen ñu leen mëna jappalé jàppale yenen ONG yu melni ni Dakar ñu ngi fi mëna leen jappalé mais ndëkk sëgam ñoom motal nañ li leen war ñun nañ focaliser wu si pédagogie ba amal leen résultat yi nga xamni mom moom lañ yaakaar si ñun mais nak bu leen fàtte dara du wéy devant la sécurité des enfants si les conditions ne sont pas satisfaites satisfaites monsieur le ministre nee Len, en tant que directeur élargir na seen compétence na ngeen tëj école ba bu leen fa recevoir xale yi bu ñu fa dugal su fekkee conditions yi motul tey nag Dalifort yëpp mot na alhamdulilahi rabbil alamin monsieur le maire au nom du ministre de l'Éducation nationale au nom de monsieur l'inspecteur d'académie d' de et toute la communauté éducative Yo ak waa Dalifort yëpp ñu ngi leen di sant di yal na leen yàlla yàlla yàgg jàppale yàlla na fi mbas bi jógee si jàmm ak salaam salli ala muhammad asalaamaaleykum eh, maa ngi Muhammad Mohamed Sané Direktur Ecol eh, directeur Islamik ke islamique franco-arabe maam Khalifa Niass bu Serigne eh, Adi Niass suñu ndaje bi tey fii dañu def lu dul ñëw recevoir li nga xamante ne mooy kit nga pour prévention ak matuwaay ñu jël si Covid 19 bi. li nga xamante ne euh, suba mooy reprise des yu xale yi cm yi ak moyenne ak terminale classe d'examen yi loolu nag euh, ñun si ñëw ñëw si mairie bi tey ji pour ñu recevoir li nga xamante ne moom mooy li ñu war a jot si wàllu kit yi donc ñu ngi remercier monsieur le maire Idrissa Diallo euh, wax dëgg yàlla gis nañu taxawaayam si mbir yi taxawaayam vraiment rafet na ndax tamit euh, fuñ ko doon xaaree moom moom lañ ko gisee waaye nag euh, lu jiitu li am na leen waroon taxaw li may wax ne dafa am école yoo xam ne duñ école publique école privée lañu ñoom ay enseignants am ay personnel yi nga xamante depuis weer yi kenn fayee ko si loolu nag nga xam enseignant war ko indi moo ñu jàngale si te mu am problème fayoor kooku gëmu ni que li mu war jox xale xam-xam dina ko def parce que xalem dalul kooku problème la ñu si interpellé ministre de l' éducation nationale. parce que xam nañ ne bëgg nañu kut kut sauver année bi mais sauver année bi dafa am fu mu war a ba fii li nga xam te loolu ñu war def suba war ñu tëb rek bëgg école publique yi ndax ñoom ñu ngi jot seen salaire yi amuñ problème école publique école privée ñu ñu bàyyi leen noonu kooku lu yëg nag du yoon lu ñu war a déplorer la te ñu ngi ñaan nag monsieur le président de la république sëgam moo njaboote ñëpp te li mu rassemblé si alal si Covid bi war nañ su mën a tekki dara dimbalee ko école privée yi ndax nag école privée yi bu ñu fàtte lu ñu participer si wàllu éducation nationale bi moom li nga xamante ne kenn mënu ko bàyyi ginnaaw c'est à saluer ñuy ñaan nag ce que mooy kilifa bi ñun dinañu ànd pour sauver année bi sauver xale yi waaye nag moom tamit na xam ne moo njaboote ñëpp bu mu defal ñenn ñi beddi ñenn ñi loolu du du du du yoon moo la bëgg a kon ñu ngi dellu gërëm monsieur le maire wax dëgg yàlla lu mu def si wàllu alal si wàllu prévention ñu ngi ko si gërëm di ko sant moom la amoon lu may lancé. gële ko alhamdulilah rabbil alamin yàlla boole suñu bëgg-bëgg eh, ak suñu mébét yëpp déggoo beeg yitte yëpp yàlla defal yombalool na ko ci mbaaxam ak yërmandeem ci jaahi sallallaahu alayhi wa kon ñu bokk teewlu jàng fàtte ayatul kursi yu falixa ak nas juróom-ñeenti yàlla tiif salatu ala nabi هدية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله ربي يسر ولا تعسر وكل شيء عليك يسير برحمتك يا رحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما وقت ما سبق الناصر أقبل أقبل هدي إلى صراطك المستقيم على يدي حق قدره مقدار عظيم الله الملائكة يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا مجيب آمين donc tey comité communal Covid 19 ñoom ñëpp comme yéen guddi lañ leen convoqué ndax euh, bi ñu ngi pare fii vingt une heure hein, après heure couvre-feu di si profité sant xale yi bu baax a

léegi da ngay dem jaa jeexaati kii yu Dalifort yi pour génne appart de l'adresse c'était difficile Donc, xale yi nag wax dëgg yàlla maa leen koy wax démb bu je croyais que il nous fallait au moins 48 heures encore pour may après midi bi mais wax dëgg yàlla def na liggéey liggéey yi nga euh, euh, vraiment en tout cas félicitations Modou ak yeneen jeunes yëpp yi fi euh, samedi ak dimanche di koy liggéey bi heure couvre-feu la ñuy donc def nañ liggéey bi quartier bu nekk sous comité du moins sous comité ñu installé nga xam ne bi demna pour ñom dañu ne ku nekk da nga koo jox bon woo xam mo mengo ak quantité ceeb bu ex donc loolu lañ def quartier bu nekk ñi indi la sa bon ak sa fiche lenn rek mo am particularité moy dali fort encore quartier li ñu indi ci fiche jox na leen lañ jox bon yoyu c'est-à-dire fiche bi ak par exemple dama joxe exemple mo xam mom corfa 70 la dañ lay jox 70 bon yi ak sa fiche 70 boobu mais paquet bi moy la xam dañ ko détaché dañ ils doon jeex ay bourse familiale d'Alifort yoy ñi ngi fi da leen koy jox à comme ah, ngeen ah, reconnaître at nit ñi loolu moo wax naa yi dëmb Modou Kambi ko certainement dañ leen soxla d'Alifort liggéey mu def pour ngeen dem leen su pour que ñu leen rapidement vraiment dëmb dañu expertise pour que ñu mën ko tas mais sur dul loolu quartier bu fi bourse familiale à part sa bourse familiale mu ngi si biir bon si euh, bon yi ak fiche bu nga indi damay wax ne aussi am na ñaari comité dañ leen génne woon ñaari sous comité amuñu bourse familiale mooy cité poste ak pencu badaloo ñooy li ñu indi moom lañ leen jox si fiche nombre de bons yi fa nekk pencu badaloo nag day amoon defe erreur parce que dañu dañoo ne onze bourses familiales mais ça compte que c'était pas ça donc saaku suukar yi xaw ma ne Omar jëli na ko ah. woote na donc fukki fukki saaku ak benn war na ñëwaat waaw day dalu delluwaat fay parce sinon day ëpp fee manké côté bi ah donc loolu dañ koy jëli mais leneen i jotuloon dem bu ku si nek li wax deug yàlla conté nañ lepp bu si nek vérifier na am na xam ne dañ ko détaché am na xam ne ay morceau am na xam ne ci bloc la nek légui ñaari quartier samedi li ñu waxoon cas ñi nga xamné dafa manké won gis ñu leen won moy belvedere 1 ak cité aux et Forêts seen bos mu ngi fii feeñ na parce que euh, vérificateur bu ko doon remplir moo ko dellawaloon. loolu moo waral tey euh, discussion bi ne la ay eh, nu bi ne leen affaire bi yombul man de mën naaw ñaari ñaari weer a ngi ne nelawam ndax lii dafa métti donc liggéey nañ ko parce que liggéey bu ànd ak xel la bu ànd ak méthode la mu ànd ak kii la donc di remercier waa comité euh, ku mel ni madame Gning si comité bu la bokk ñëpp xam nañ responsabilité am ko war a faj war a fekkee lii. chaque jour mon fils, imam président imam président délégué de quartier président de président président commission sociale président des jeunes hein, le conseil communal de la jeunesse et hein, ak euh, voilà qui me dit représentant parce que Modou Kambi mooy représentant ministère bien en fait Nous, le développement communautaire indi nous avons vérificateur, 24 vérificateurs Nous tamit wax dëgg yàlla liggéey bi suñu deux jours

jegewaay bi moo tax ñu def ko benn der am na ay bourse mënu leen génne bi fa leen di yóbbu da leen di bay foofu parce que ñoom naturellement dañu war a bokk école d'Alifor lañ la war a livrer parce que fa lañ fa lañ nekk fa lañ jege soo leen indee fii da nga leen di dañuy gën a sori donc fa lañ bokk Dalifor bokk fa cité Mor Ndiaye bokk fa cité Shell bokk fa cité Shell nag Mor Ndiaye ak Dalifor ñoo bokk bourse familiale loolu tamit il faut nit ñi comprendre ñoom ñu ngi nii man mënu ma wax fii si bourse familiale kan moo nekk si ak maam koor kan moo fa nekk ak Bilal Dia kan moo nekk quartier ni mu titi euh, na laa ko waxee Ablaye Mbaal ñoom ñoo ko xam seen biir donc il faut ñu bay leen ensemble ñu trier ko seen biir ah ñu nekk fii côté bi la côté mais man mënu ma tas tey ne ma encore dama lay jox bourse familiale yi nekk sa koñ ak fiche bu nga indi wax nañ ko déjà si réunion yi passé ñëpp comprendre nañ ko fa la ñu toll du question dañu bañ a yóbbul ñii bañ a yóbbul suñ ko su leeroon ni ñu yóbboo Euh, dajalel wa euh, Touba Serrat Daaru Salaam Mor Mati Sarr ak li euh, mu tati dëggoo église bi fay fi mënoon nañ ne par exemple dañuy yóbbu ben côté je sais pas Maam Kor wala côté li mu tati Cité Shell wala Mboon Ndiaye regroupé fofu foofu di jëli mais contrainte bi lu tuba naan contrainte manam, jafé jafé bi moy bourse yi mënuñu ko tass so jëlee Mor Mati dañ ma jox bourse Mor Mati bi Mor la même si di adresse de la for la man fa laa bourse yi nekk Hacienda amu si kenn ku dëkk Hacienda enfin kenn defe naa la ñu biir adresse Hacienda quatre la mais yéen ñëpp difficulté boobu la amoon da koy dem géex maintenant kii fan la nekk parce que suñu si jee Daaru Salaam nit ñi dagg nañ ko dugal ko Daaru Salaam il ñu pointé Daaru de noonu la demee boobu moo waxoon waa Daaru Abdou Faye la tudd depuis combien de ñu ngi koy wër Daaru la nekkoon 21 heures lañ gis ni muy Daaru la wax naa ko xale yi du yomb si ñoom mais xale yi ñu ngi fii xam nañu commencé nañ ko miin ngeen woo Modou Kambi rek mën na leen indil xale yi doon liggéey si liy def tri bi parce que ku ko tàmm pour mu jàppale la dafay yomb donc euh, loolu laa leen bëgg a jox comme dënkaane que du yomb nag xam naa ne yéen waa Dalifort comme ni ma ko waxee man ngeen commencé si fiche yi ngeen ciblé mais bourse familiale mënul commencé te bourse familiale dañu ne woon aussi puisque dafa bëri ay ah adresse yi c'est pas exact ni ñu jéem a mujjee côté boobu en attendant ni ñu def réglage yi nga xam ne dañ ko war a rek mu yem mais fiche yi ni ñuy remplir

Euh, si si bon par la majorité assurance ne quartier 27 27 kii 27 kits mu am 33 bourses familiales mu nek total 60 donc euh, medoun suy dem tay 60 60 bon lañ koy jox bourses familiales yi ak mais suma ma cité poste ñu cité poste 50 50 la defana 51 ah 51 le kit mais amul bourse familiale donc 51 plus 0 lay am mu nek 51 rek lay

Euh, Modou donc c'était assurance Qui ah, euh, délégué donc 60 sur 60 ans 60 bons sur 60 ans 60 moo fi 60 la ñu donc bourse familiale ak qui C'est lissement yi top moi bon Belvédère 1 c'est à part ah dañ koy dañ koy ah, dañ koy bon yaa ngi ah. ça fait comme nous corps ko Belvédère 1 le mais c'est pas cacheté encore profité le ko glissé yaa bu si Top, Belvédère 2 Belvédère 2 voilà Belvédère 2 ngi 190 ah. bon le 190 26 bout familiale à 164 un kit. Hmm? 26 de familiale c'est am de la mouri. C'est fa. CFA CFA 118 le total voilà donc 118 28 bourse familiales. à 90 90 kits. Avec 28 bouteilles familiales. bourse aussi comme nous, ko waxee bi ñun ñoo non lañ ko bëgg respecté quartier parce sinon suñu nous devons vraiment deux mois duñ ci encore dafa compliqué trop donc nous ko joté quartier bi temps nous jox ñu tour yi dañuy ko quartier réagissement yi fay quartier def ah, arrêté n'est-ce pas euh, président donc cité aux forêts bon ñoo bokk situation ñom sen boss. ñaar ñoo wara belvedere du ñoo a ci deuxième bloc bi la aussi c'est voilà 65 là. donc 5 60 ak 5 là. kii Modou il faut vérifier bu wax 65 60 ak 5 hein? vérifier ah, voilà donc après si cité Hacienda 29 29 bon là 25 que c'est une fiche ak 4 yu nekk si nim qui euh bourse familiale n'est-ce pas C'est Diouf. Hilal 1. Ilal Ah, ok. Donc Hilal. 48 47 kit ak une bourse familiale 22 bourse familiale moo fa am ah. Marine 3 Marine 3 44 kits. le 22 bourses familiales mu 66 au total. 44 kit ak 22 bourses familiales Mor Mati Sarr Mor Mati Sarr 133 la 116 kit ak 17 bourses Castor municipalité mooy cité mairie 132 la 97 kit ak 35 bourses familiales 132 donc 97 kits ak 35 bourses familiales cité poste 132. cité poste 51 kits 0 zéro bourse donc 51 soleil Complémentaire. Complémentaire. Voilà. Complément. Donc, cité soleil. Cité soleil avec Ilal. 85 le. soleil, j'étais 29, 46 Donc, bout familial 33.

amul fu ñu koy feeñal dañ ko jox complément. loolu comme ça di sori la ñu lii bu bëri rek ñaar yooyu moom préfet au courant de tout ça signé na. signé na ko waaw. donc quartier Abdou Diop 164 kit la bourse familiale moom si paquet bi donc quartier Abdou Ousmane Diallo Ousmane Diallo quartier Ousmane Diallo Anglou Ousmane Diallo 83 kit la donc bourse familiale muy si bureau yi fii ah quartier Mor Ndiaye Mor Ndiaye Momar Ndiaye c'est 33 kits Donc après c'est cité Shell. Shell. Shell c'est 55 kit bourse familiale bi la c'est Ibra Ndaw quartier Ibra Ndaw 81 titre la 81 kiit yi ceeb ceeb bi gars yi ñoo ko moom de moo yëgal la ko ndaw bu lekk ceeb yëpp de Lamarana Diallo 42 kit la quartier Lamarana Diallo 42 kit kenn ñëw waaw ah, woyal ko président bi ah waaw bu Lamarana bi ah bu Bilali Dia Là, il y a 50, 50 équipes. Encore pas de Mam Korfal, 70, 70 kids. Après, c'est Ablaï Mbalou. Ablaï Mbalou. 68 68 non non qui règle? la bourse ah. familiale allez Vous fi bu Salam. yëpp Dar Salam. donc Dar Salam 131 kits 57 bourses familiales oui, 188 Dego. Dego, 83 kits 32 bourses familiales 115 83 kits 32 bourses familiales 115 au total Pencum Badalou you, Badalou 50 kits 0 familiales. Tout va, Seras

waaw ah, délégué may bi xam na li nga gis ak kii Modou Kambi mooy ki ngeen tëboon xam nga cent ñu mu jël 47 la xaw ma 46 voilà 54 da ngeen ne numéro 54 ngeen dem 56 55e boobu il faut ngeen après di leen jox bon pour ngeen remplir ko ngeen xam yéen xam tour bi kenn moo xoroon ne ki ngeen tëb si seen liste mais liste bu ngeen indi da ngeen ko da ngeen def 54 dem 56 donc 55 voilà ci seen tur bi léegi Modou da ngeen di gis ak Modou Modou Kame bi pour ñu défal ko Cité Soleil tamit amoon ñaari kay yoo xam ne nañ ko sax avec le préfet ñaari bourse familiale yi nek Cité Soleil xam nañ leen seen carte mais feeñu ci ben bourse familiale préfet dafa non ñu lay leen euh dugal nañ leen mais ci dindoon ay nit mais puisque gis nañu ay trou dañu ne ñaari yoy aussi il faut que ñu remplacer hein directement au crédit Cité Soleil mom la délégué bi doon wax faté wuñu ko mais dañ lay jox li ñeu déjà li ngeen yoré la ngeen indi mais loolu lañ leen koy jox aussi hein compléter ko de ngeen donc vraiment li lañ fi yoron def na quartier yeb jot nañu li ci dess mom ah amen fi mom ndaw nday ak yete bay ak sama mbok séeréer yi déggee rek mom du ngeen am jàmm nañu góorgóorlu rek ah eh, jël si ñu mu tëddi matuwaay ne kii jox lañ ko seen fiche yi la fiche bu maam koor Abou Diop Ousmane Diallo, ça mon les fils de... du du du yomb li ñu ko ni ñu ko waxee si réunion bi dam si dam koy bamtuwaat rappeler ko nit ñi yor ngeen bon yi koo leen joxul bon du mën jël si ceeb du mën jël si du moins produit Dalifort am na li manqué maanaam produit yu manqué yëpp école bi lay parce que bu ñu yóbboo li manqué foofu la nekk ñu ngi si mooy si wàllu diwlin ak euh, defe naa pat pat bi dafa manqué 5 tonnes duli li manqué 212 bouteilles donc ñu ngi ci sous préfet mu ngi si xam naa ñuy kii rek euh, lepp dina ñëw mais dañu bëgg bon yi comme niñ ñu koy waxoon kéro réunion passé bon yi yéen koy joxé yéenay wax nit ki kañ lay ñëw su ñëwulee na xaar bu bari ngeen kat paré pour ngeen def sinon li ñuy bañ moy dajaloo parce que ku leen oowul du ñëw. kii soo ko joxee nga ne ko yow alarba ngay ñëw diggante deux heures ak cinq heures soo ñëwee nga jël sa produit soo ñëwee aussi dañ koy tëjaat ba jour bu ñuy amaat jot pour ñu mën éviter dajaloo donc bon suñu sañoon si ginnaaw bon bi mën nga fi bind rendez-vous ah bon bi xam nga bon bi dañ koy détaché bii souche bi après day ñëwaat de souche yi ngeen gardé ko ba day ñëwaat day delluwaat su préfecture su ngeen joxe lii mais lii su ngeen koy dagg nii ngeen def RV bi fii ban heure la ban jour la yoo nga xam ni tel jour si suba si vingt personnes rek laa convoqué ngoon si convoqué naa dix personnes si ëllëg si naa lii donc di nga mën a gérer nit ñi ni ñuy ñëwee mais su dee dañuy dem daggat dagg ñëpp ñëwandoo puusante na ana sama bos fala faloy di commencé saagante waxi ñaaw yu commencé jóg mais nañu jéem a gérer en fonction ñi li ñu mën a recevoir par jour ñu mën leen jox rendez si ginnaaw voilà ku leen sonnal amul rendez-vous ñëw na par force mais vraiment délégué yep am commissaire commissaire il veille il est là il est en train de tourner il veille ils sont en train de veiller sur ça Pourquoi pouvez perturber les gens, parce que yow rek nga par force lay jox yow jour bi bu mu fi bi presque li un mois le sept la ñëw bi fi la commencé dem barki donc dañu def ku nek di nga sa nañ ko ñu inscrire ak ku bourse familiale sa bi bu Danifoor bi kay bu des fii mooy li des mais ceeb bi fii mat na suukar si mat na saabu bi mat na diwlin bi moo des tuuti ak pat pat bi moom li si des moom bëri na te sama mbokk séeréer moom suñu amulee macaroni rek joxoo leen dara ñoom macaroni moo leen soxal donc dañ fexe bi macaroni bi ñëw mat loolu laa bëggoon vraiment surtout rendez-vous yi wax leen ngeen bàyyi si xel bu baax a baax bañ a dagg noonu rek jox ko nit ñi doo leen mën a gérer suite doo leen mën a gérer affluence bi doo leen mën a gérer euh, xuloo yi fay nekk après Merci Lady, ah, Madame, euh, Madame Yeng, hein, euh, ah, Ngone Hayiki, ah, hein, les membres du comité. dolly, après nous, voilà, après nous, nous avons un dolly. Nous avons un C'est bon. Waaw waaw mooy Modou. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. maa ngi nuyu ziar euh, ci bi dama bëgg rek pour su ngeen di ngeen def ñu suñ pour vérificateur yi fekkee ko parce que madame Dia service développement Pikine dafa ne fépp fu ñu tàmbalee rek na vérificateur nekk foofu noonu fépp fu ñu commencé joxe ceeb rek na fa vérificateur yi nekk pour su ko defee yéen ñi war a commencé rek na ngeen teel a avertir pour ko defee yónnee fa ay vérificateur ñu ñëw fekkee joxe bi quoi waaw loolu lañ bëggoon incha allah merci jërëjëf. donc loolu aussi il faut que mu leer vérificateur yi vraiment ministère moo leen yónni ñoy waxal fé ñi ñoy yoro suñu secrétariat donc nañ leen puisque ñoom loolu lañ bëgg li ñuy def ci ñu fekkee ko parce que yéen li ngeen def si au niveau communautaire c'est-à-dire population bi la mais ministère li mu war a fekkee mooy ay vérité ay nit yi mu choisir ñoo taxaw fekkee aussi que ñu ngi koy def voilà. yi nga xamante ne nii moom moo war a dellu ci gox yi mais dama doon bëgg a xam ndax dafa am ay fiche yoo xamante ne nii pour distribution bi ku ñu jox fan la ñuy remplir turu jox nañ ko au delà de bon bi lolu mom moy benn bi benen bi moy démarrage officiel kañ lañu japp né ne war nañu mëna commencer distribuer ci biir quartier yi à travers les les comités donc ñaari inquiétude yoy la amone bëggone ci lu leer quoi incha allah. vraiment mënuñu wax tel euh, jour lañu commencer parce que wax ñom depuis dëmb bu nañu distribuer parce que 29 lañu ñom suñu amé ñu seen mat nañu je crois ku nek dal ak sa avancé si affaire bi nu nga avancé nga commencé joxe see parce que doo ko mën a garder noonu am na nga xam ne dañu am problème sécurité comme Asenda euh, fu ñu teg seen produit donc ku nekk soo paree rek war nga mën a commencé discuter bon yan dali fort puisque bloc dañu def bloc fay kii xam naa di ngeen réunion pour xool parce que mën ngeen mën a commencé si fiche yi ngeen concevoir bourse familiale yi en 48 heures war ngeen mën a régler les problèmes là li ngeen yore nii 83 pour joxe ko je suppose war na mën a jël 2 jours wala

nous sommes ici. bi euh, numéro téléphone pour les vérificateurs je suis informé dina informé Ben risque complémentaire Bobu, li mairie comité samedi passé cité poste 1 Ilal deuxième donc cité poste indi na euh, doyen keroog woon na ma sax mu ngi ko yoroon donc euh, dama doon pour ñu jox ko maxal loolu la ñu signalé woon ñett yooyu ñoo amuloon donc dañ ko indi liste complémentaire boobu du ak lii du benn loolu pour xam nga li ñu yore nii dafa dafa xaw a doy waar nañ ñun yàlla dafa ñu natt ñu nekk ay politiciens loo defay naan politique la ci def dañu ne am ay comité ñu teg ñu nekk ci quartier yi ñooñu nañu woon ñeneen ñi nga ñoo war a topp ñi ñu mën leen jox loolu rek la suñ ko amulee nag ñun am mën nañ dem directement am na ay nit nga xam ne mën nañ leen gis mais dañu bëggoon comité bi aussi jox ko cër boobu mu ne lii mooy officiel 40 la ñu jox 40 yi mat na waaye suñu sañoon aussi 30 yi si topp nii dañ leen siy boole pour que su dee mën nañu am feneen ñu mën leen jox loolu waral ñu ne liste complémentaire mais boobu kañ lay commencé kooku si mairie bi la boobu ñeneen ñoo koy décidé du comité bi bureau municipal baa ngi nii ak secteur municipal ak maire ñoom الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام سنت يلا بباخ تبارك وتعالى تي جابان دلغي اك تي وقتان بي اك ديغو بي وقت دي يلا ما شاء الله رفتنا امول بن خيتو امول بن ديسكسيون سي لو مير نيون لي فيليسيت دي ريميسي بباخ تي سا تخواي اك سا كوراج اك سا ليغي وخ ماك شاء الله sonu nga ci jox nga ko akam wax deug yalla ba ba ñu agsi fii tey alhamdulilah rabbi alamin yal na yàlla may ñu mottali ko ba mu gën a rafet comme niñ ko dëppoog suñu njort ma zalika la bi aziz alhamdulilah kon ñu def ñaan ekkiti wat jataay bi ba yeneen jamono incha allah bokkaat teewlu kenn ku nekk jàng fatiya ayatul kursi juróom-ñeenti yàlla tiif salatu ala nabi ñëf ko hadiyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam defal la ci sunuy mbir defal la ci ñaanal sunu borom taaroo ko tàlla jàngoro ji nga xam ni mu lëmbi adduna bi waay waay yàlla ci sa yërmande ak sa mbaax ak sa kattan ak sa sañ ak sa man man jëleel nu ko fi delloon ci sunu jàmm ak sunu wér-gu-yaram loolu yomb na yow rek yaa ko fi mën a jële ah, kon ñu ngi la koy diis jërëjëf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 ربي يسر ولا تعسر وكل شيء عليك يصير برحمتك ربنا تقبل منا انك تسمع عليم وتب علينا انك تواب اللهم اشف شفاء من لا يغادر الما ولا سقما اللهم لا شفاء الا شفاك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوه يا من له الاسماء الحسنى والصفات الحسنى يا غفور يا رحمن يا رحم يا شكور يا منان يا لطيف يا ذا الجلال والاكرام تقبل منا Donc rabbika alhamdulillahi rabbil alamin amin donc dañoo tay maire convoqué le comité communal de ciblage comme commune bu nek dafa comité communal de ciblage mais délégué des quartiers en même temps nous sommes président des sous comités ci quartier yi sous comité de ciblage et de sélection de distribution aussi parce que nous euh, bi da naka ci ñun lay maire en tant que président du comité communal pour jox ñu bon de livraison euh, président sous comité bu ne jot say bon de livraison ci ñi nga xamné walu bourse familiale ñi bénéficiaires yi ak ñi nga xamné ñom lañu la ciblé ci Covid 19 Covid 19. donc jot nañu bon de livraison yi décentraliser nañu aussi point de distribution yi jëlee nañu fi nga xamné mo doon point de stockage yi école d'alifort jox nañu waa Darou salam jox nañu waa cité Mor Matissar jox nañu waa cité Soleil jox nañu point de distribution proximité yépp joxé jox nañ leen ba mu des nag les neuf quartiers yi nga xamné moy mooy ñom ñoom ñoo nekk ci école bi donc jot nañu bon yi légui ci ñun la dess pour ñu organiser wu à ce que lepp égg ci population bi ñi ngi sant état bi di sant gouvernement ndax e lepp xeyna na bi yéex na metti na lol lol lol lol waye lu ci ne étape la am étape bi ñu excité nak moy jot nañu bon de livraison yi donc leer na que ne war nañ mën a distribuer on va s'organiser en conséquence pour ku ci président bu ñibbi ak ña nga bokkal seen point de distribution de proximité ngeen organiser wu ay rendez-vous pour nit ñi mën a ñëw pour euh, engouement populaire bi bañ a am nit ñi bañ a dajaloo tencaloo ci point de distribution yi dinañ ko organiser de sorte que nit ñi duñ fa dajaloo mais nañu def étape par étape par étape ba ñëpp jël seen kit asalaamaaleykum wa rahmatullah di sant nag maire